internationale. abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir saa su nekk xibaar yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim réew. asalaamaaleykum mbokk internet yi ñuy bàyyi xel seen site am solo bi di seneinfo point net ak it seen chaîne youtube seneinfo international suñu différentes plateformes yi ñu ngi leen di falaat bu baax a baax ki seen teewlu bi ngeen ñuy def. ñu leen di dalalaat euh, tey ci seen euh, émission sociétale tey nag euh, suñu gan Ramatoulaye Bodian lay wuyoo moom nag entrepreneur culturel la nekk directrice bu festival international de cinéma bi ñuy woowee image et nga xam ne ñu ko taxawal nag ñoom ñooy association boobu di image et vie ñu am nag lu ñuy waajal dinañ waxtaan nak moom nag ci loolu ñuy waajal wante tamit ci solos association bi euh, nga xam ne kon moom mooy image et vie balaa may sori rek kon xam naa dama koy bàyyi rek euh, mu nuyente ak mbokk internet yi. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu mbokku internet yëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp ñi nga xamante ne ni ñooy faral di euh, seetaan émission bi di Seneinfo ci seen chaîne Seneinfo waaw di kontaan bu baax ci invité bi nga ma invité tey ci léegi. waaw euh, Ramatoulaye euh, junj naa ko léegi ci sama présentation yaay directrice bu festival international de cinéma image et vie euh, association image et vie bi ngeen bi nga bokk moom moo ko taxawal ngeen di waajal nag vingt deuxième édition bu festival boobule kon di festival international bu cinéma image et vie xam naa dinañ si ñëwaat incha allah ci biir waxtaan yi mais rek balaa may sori boo ma doon defal tey benn présentation seen association boobu di Image et waaw eh, Image et Vie dafa nekk benn association boo xamante ne ni eh, association kii buy association culturelle eh, cinématographique boo xamante ne ni day yëngatu ci lu jëm ci culture. Mm-hmm. ak ci éducation maanaam ci yar jaarale ko ci cinéma. waaw euh, association bi nag euh, ñi ci bokk mooy ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy euh, exploitant yi mhm. ci cinéma ñi nga xamante ne ñoom ñooy distributeurs yi distributeurs yi cinéastes yi ak cinéfilm yi animateur culturel yi ak communicateurs yi ñoom ñëpp ñu ngi ci biir image bi mhm. ñoom ñëpp fas yéene bokk benn bëgg-bëgg muy jéem a jëmale kanam li nga xamante ne moom mooy cinéma fii ci Afrique. Mhm. kon seen objectif principal euh, loolu la maanaam euh, cinéma. cinéma Afrique euh, mun a jëm kanam ñëpp mun koo xam tey tamit delloosi li nga xamante ne ni moom mooy cinéma fii ci Sénégal. comme par exemple salle de cinéma yi ñu ubbiwaat ko fii ci Sénégal. ok waaw loolu gis nañu dafa commencé raar amatul woon sax amatul woon cinéma yi dafa demoon ba ba ba tëj. cinéma yëpp presque tëjoon nañu fii Sénégal mais euh, ñun su tamit dañuy day comme ci cinéma la ñu yëngatu te xam ni loolu noonu bokk na ci li yàq li yàq société bi bokk na tamit ci li yee tamit société bi ñu ne pourquoi pas du ñu def ay jéego yoo xamante ne ni pour cinéma yi dafa daal di waat fii ci Sénégal. lan nga jàpp ne moo waral tëjum cinéma yooyu. tuuti je pense que xëj na ak euh, absence li nga xamante ne ni moom mooy euh, euh, nu ñu koy mën a waxatee présence su. Euh, euh, technologie bi nu mu avancé nu mu avancé bu baax a baax ba mhm. tax na yenn film yi xëj na duñ ko ñu bëri duñu dem ci salle de cinéma yi ñu bëri dañoo gën a fulaal seetaan euh, télé télé série yi ak yooyu noonu portable yi ak yooyu noonu smartphone ak yooyu noonu mais ñu gis ni que ni cinéma dafa nekk loo xamante ne ni dëgg la di mun nga seetaan film mais ni nga koy seetaanee ci cinéma dina wute bu baax ak ni nga koy seetaanee ci ci ci écran bu ndaw bi ak waaw portable bi dëgg la euh, tey euh, ma delsee ci li nga xam ne moom mooy euh, festival bi vingt deuxième édition bi moom ngeen di waajal moo a am ci diggante le neuf ak le octobre noonu la de waaw le neuf jàpp le douze le douze incha allah bu ñëwaatee ci festival bi d'abord balaa ma lay laaj ci organisation bi lan mooy solos festival boobu waaw festival boobu bi image bi dafay regrouper Euh, lu njëkkee mooy ñi nga xamante ne ñooy yëngatu ci cinéma mhm. dafay am ay rencontre yu am solo yoo xamante ne ni dañ koy amal yi nga xamante ne ñu weccante xalaat ci lu jëm ci cinéma li lii li mun a sukkali cinéma euh, Sénégal euh, rawatina Afrique bi yëpp mhm. te tamit da day am tamit loo xamante ne ni à chaque année day am thème yu bees yu nga xamante ne nii moom la ñu fas yéene di waxtaanee li jëm ci société bi ak naka lañ koy mun a euh, jubbante wala naka la mun a def pour jaarale ko ci cinéma ñu tamit di def suñu wàll ci ci ci société bi. ren mooy vingt deuxième euh, édition bi euh, organisation bi ana naka la nar a demee ak ñen ñoo ci bokk. waaw ren mooy vingt deuxième édition bi d' ailleurs dañu defoon appel à film. Euh, lancé ko ci àdduna bi yëpp su ko defee ah ci Afrique bi yëpp daanaka même euh, mun naa ne ci àdduna bi parce que ñi nga xamante ne ñoo jot euh, tontu jénn nañu Afrique am na pays yoo xamante ne ni jénn nañu Afrique daanaka jot nañu lu mot lu mot lu ëpp cinquante films yoo xamante ne ni jógee ci lu lu mot juróom-ñeenti dëkk mun na ci lim France par exemple Suisse Belgique Maroc Euh, euh, Mali. Mhm. Burkina Faso ñoom ñëpp seen i film am na yeneen i dëkk tamit seeni i film ñëw na donc mu nekk loo xamante ne ni ay sélection lañ koy def. Mhm. sélection film après mu am compétition. Euh, pays yi nga xamante ne ñoo ci bokk. ñi nga xamante ne ren seen i film ñëw nañu. Mhm. mun nañ mun naa ci lim ay comme par exemple la France Suisse Belgique. Euh, Maroc euh, République démocratique du Congo. Mhm. Mali. Euh, am na ay pays yu bëri yoo xamante ne ni ba ci Sénégal moom daanaka ñu ñu. lu Sénégal ci ëpp Sénégal la. ñoom jot nañu seen i film def day am tamit sélection. Mhm. bu amee sélection day am tamit compétition. ñu fas yéene def programme bi ñu def dinañu amal ay projection de film. Mhm. en salle en plein air. dinañ amal tamit euh, ay ciné ciné ñu koy waxatee sax projection de de de euh, comme euh, public jeune xale yi hmm. ak tamit ren dañoo instauré li nga xamante ne moom mooy projection tout tànk maanaam ñi nga xamante ne ñoo am trois ans ba jàpp cinq ans ñoom dañuy am seen projection bopp ren tamit lu bees ñu daati ko ci yokk ci jury bi parce que tamit day am jury ku wax compétition dina am jury mhm. donc nag ñu yokk ci ren mu am jury jeune jury jeune yi euh, ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñoom ñooy jury yi euh, film école yu nekk fii Sénégal école de cinéma donc ñoom seen tranche d'âge d'âge mu ngi jàpp euh, quinze ans ba vingt cinq ans ñoom ñooy nekk ren jury jeune bi mhm. donc compétition yi am nañu ay jot nañu am ay film documentaire fiction court ay long métrage jot nañ ko ci am tamit mhm. dix-neuf euh, fiction film fiction ak euh, sept film yoo xamante ne ni cinq film yoo xamante ne ni documentaire la ak film mhm. euh, yi ak trois yoo xamante ne ni cinq film école ak trois film yoo xamante documentaire la ndax organisation peut-être da ci ànd autorité Sénégal peut-être lu si mel ni ministre ministère de la culture ak yooyu. waaw waaw dañ ci ànd ak moom parce que d'ailleurs ñoom ku wax euh, culture euh, saa su nekk euh, ñoom ñu ngi ci biir ministère de la culture mu ngi ci biir waa DCI ak sunu sunu partenaire bi nga xamante ne ñoom ñooy waa délégation Val Valérie Bruxelles Bruxelles d'ailleurs sunu sunu sunu sunu clôture bi foofu lañ koy defee. Hmm. le douze. ok clôture bi le douze la war a doon quoi. waaw xam nga di ngeen ñëw bale rek waa Sene Info. <laughs> waa léegi suñu partenaire lañu. <laughs> léegi euh, laaj ma lay laajal rek mooy peut-être euh, ci ak tënk boo ngi doon wax la réalisation yi nga xam ne euh, li nga xam ne moom mooy image bi jot nañ ko def li ngeen nekkee ak léegi peut-être. li ngeen liggéey daal peut-être nan la jur loo xam ne xam ngeen ne lii lu positif la te loo xam ne peut seen liggéey moo ko indi. waaw euh, comme ni ma la ko waxee ñun suñu euh, festival chaque édition euh, dañuy amal yi nga xamante ne moom mooy ay ay ay formation day ay formation donc sur les métiers du cinéma jot nañu former ay jeunes yu bëri ak ñi nga xamante ne sax si milieu du cinéma bi ci ci métier cinéma yi nga xamante ne ni moom moo leen soxal mhm. donc formateurs yi fii la ñuy jógee fii sénégalais lañu ay ay formateurs yu xarañ yoo xamante ne ni ci cinéma la ñuy yëngatu ay professeurs de cinéma. Mm-hmm. waaw euh, am nañu tamit suñu édition bi nga xamante ne ni moom la ñu jënd euh, jot nañu taxawal li nga xamante ne moom mooy réseau euh, festival yu Sénégal. nga xamante ne festival du cinéma yu Sénégal yëpp dañoo booloo nekk benn benn benn say mm-hmm. su ko defee lépp li nga xamante ne ni moom mooy problématique cinéma Euh, ci festival ñoom dañ koy daal waxtaanee euh, ñu mu doon benn kàddu après ñu xool naka la ñuy naka trouver des solutions. Mhm. am na solo xanaa rek damay laaj kon luy doon <laughs> sa kàddu gu mujj looy daanelee waxtaan bi. Euh, waaw li may daanelee waxtaan bi mooy xanaa di woo nit ñi rek ñu ñëw ci festival bi ouverture bi nekk le 9 di ko amalee ci maison de la culture Douta Seck. Euh, jot nañu euh, daaw sunu suñu sunu édi sunu vingt et unième édition euh, fële ko amale woon Fimela donc jot nañu foofu amoon nañ fa benn terrain jot nañ fa teg li nga xamante ne mooy première pierre bi fas yéene fa avaler benn benn centre cinématographique pour former jeunes yi nga xamante ne ñoo nekk foofu noonu sur les métiers du cinéma voilà di woo ñëpp ñu ñëw ci ci ci festival bi di lañu di di eh, di leen wax ni eh, cinéma doon na loo xamante ne lu am solo te festival image bi loolu donc moom moo nekk eh, fi moom moo nekk activité phare bi mais dañuy yëngatu ci yeneen formation di dañ nekk tamit ci loo xamante ne ni moom mooy organiser des projections de films en plein air dans les quartiers populaires du Sénégal dinañu dem tamit amal ay ay organiser ay activité yoo xamante ne ni euh, ci cinéma la jëm di manager tamit ay action yoo ay ay festival ay ay manifestation mhm. euh, culturelle voilà loolu lépp kon da ngeen ci yëngal kon daal euh, festival bi dafa nekk li ci gën a fës rek mais yëngu leen ci festival bi waaw moom mooy activité phare bi mais ñun dañuy yëngatu ci audiovisuel ci lépp dañuy produire tamit voilà am na solo ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf Ramatoulaye Bouyan ah, di fàttali ne kon ah, entrepreneur culturel nga nekk directrice bu festival international euh, de cinéma image et vie euh, bi nga xam ne nag kon association bi nga xam ne moo bokk tur image et vie ñoom ñoo ko euh, taxawal ñu leen di ñaanal na kon nit ngeen am succès ci seen vingt deuxième édition boobu nga xam ne kon. merci beaucoup allah yéen a koy taxawal di la jaajëfalaat bu baax. di jaajëfal itam kon mbokk internet yi nga xam ne ñoo ñuy euh, bàyyi xel euh, saa ne di leen jox di dajale yàggul dara rek ak beneen invité.